jos josu jàmbur ju jos li du josu kenn lii sa josa dokul dog waaye boo meree di di di di dàqali ko sa sago meree da góor da mën a contrôler te drapeau am leen oh. waaye loolu baabu njëmee Birima waaw lu xew damaa bëgg a xam lan moo nu jële dëkk ba indi ñu fii waaw lu la woo ko laaj. yow jógewuñu dëkk ba ñëw war si fii. waaw wut yàlla nag sellal ko. waaw. ak booleeg lu ñu am ñu delluwaat dëkk ba di ci suñuy soxla. waaw lu tax nga ñëw ba fii baa bañ birima yaa ngi may nëbbu. seetlu naa la. sa tànk bi dangaa mel ne lu joggi laalo mu mel ne yorox doo yendal doo fanaanal. lu tawut a xam nag dafa yàggul yow war ngaa xam ni moo fi diggante xàcc kub doo daan ana lan moo fi xaj yow mën nga ma fee romb yow di doxaani kii ci kest bi lan la ma ëppalee yow. baaba njéemee wax. xaw ma ku ma wax picc muy laq ci taat bëgg ma loo. léegi yow da bëgg loo xam wala da nga koo wax ma ñaar yooyu lan la ci. damaa xam ba pare. dangaa xam looy laaj maa jël xale bi maa koy doxaan xale bi maa koy yore maa koy doxaan. maa ma ba ba ba booy bi maa koy saxal ween góos bi moo ëpp ween moo ëpp meew ween góos bi maa ko koy saxal loolu nga bëggoon a xam wuy ma ñàkk fayda yow ndokk matoo kilifa laay laay ba may ba ma ba ma yàlla mayee ma takk ñeent soxna nga waroon a xam ne yemuma ci yow rek waaye ñime woo ko woon ndax wóoluwoo sa bopp koo xam ne foo tool da ngay lay kirij moom damaa laajul bu ma laajoon du dugg ci yow de. Ah, ah, daga di ko ne yow yaa xamul li xew damaa xam ni à ton âge ak wóllare gi ma seqoon ak sa ñoom mbaay ak yooyu ak nañ ma la maye waruma laa teg lu diis attanoo lu diis bugguma laa teg loo xam ne euh, dégg nga si maam suba wala ngay paanak di sunu xol say crémaillère di di di damm say rotir di ngay baraake doo mën a dem looloo tax. dama laa yërëm mënuma laa teg lu diis ma ma ma ma lay see ay premier mi-temps di la yóbbu baax na tous di la may ndox mu sedd ngay naan kii mën naa jouer cent vingt minutes cent trente minutes jouer quatre prolongation dégg nga ma am lu ma dese loo xam ne dama laa xañ sama bopp ma lay nëb sama bopp man turbo laa am bi ñaari turbo damaa boot ñaari turbo côté gauche ak côté droite bu ma déclenché doo ma téye cent quatre-vingts kilomètres heure laay daw autoroute Sénégal yi àttanun ma ba ma may fubali fële lii laa moom de bosam dina yàqu te di nga yàqule su ma génnee ci biti ba jàkkaarloog moom bu rompewul dellu foo mu jóge woon yow di nga am loo gis yow. yow xam nga at mu jox embrassanté day changé xale yi lañuy changé façon bi ñuy fóonantee xam nga ko xam nga ko danga koo xam yaa am na léegi fi mu toll nii fóonante fu muy tool noo xam ne mënatoo ko te ñun ñu lool lool man mii mii mi man dama koo soxla dama koo mën a jox waaye yow. ñu xar lu ma lay doyee. ni yére yi di changé noonu la emballage di changé xale yi bu ñuy ni ñuy emballagé ren bokkul ak ni ñuy emballagé déwén àggatuñu sax ci déwén xale yi léegi chaque trois jours de façon am yoo xam ne dañuy seen amee taf ko ci xàq gi lañ koy tax naan ko yooyu da nga koo mën. léeg-léeg dañuy ñëw ba sagganaa nopp fii yaxu nopp nekk ñun la nii mu ñëw ci sa bopp bi nga koy sentir fii ci sa ci sa moelle épinière bi léeg-léeg def ni ñu ñëw ci ci sidditu baat yi nit yi nii mu mel ni dañ laa roof glace ñu jël sa ñaari tuñ nga def ni dañ ko ciy buus nii bu baax ñu la ni <laughs> yooyu danga koo mën soxor yow baaba ñeeme yow xamoo ma nag yow baaba ñeeme yow danga maa réere mbir ma waaw dama ni man may may nga naan danga may jéem a feeñal yow li jant sakaar yow dinañ la tëj ndax pédophile boole ñaari jabar pédophilie la pédophilie eh, eh, eh, xale yi feccatuñu fii laay ndogoo fii bu ngeen ma yéene indi leen fa ndogul bu ngeen ma yéenewul bàyyi leen ma fay ndog oh booy bii nga xam ni moom comme tàngal bége mooy tàngal bége mat màdd bi li ma daan jox rek. moo tax doo mën wax ji. Mhm. ci loo ne maa yaa ngi si jàmm. maa ngi laa def. yow yaay bége del bége bége nga fépp. waaye bëggee man màdd gi neex na ma soo tot tot tot tot tot sa bëggee màdd gi tàngal bëggee màdd bi toj na fi xam nga ci Sénégal bu manqué màdd sax parce que période yi day am màdd bii du am tàngal bëggee màdd bi moom boo ko sexee am am nga màdd bi yaa nga ca kaw ah, waaw yaa ngi nga ca kaw yaa waaye fii toj na fii tamit toj na waaw ana sa meew mi sama meew bi mënuma ko fee teg dafa tàng te xam nga du baax ci meew mi ndax meew ratt la pur waaw moo tax dama koy def ci frigo ah waaw waaw waaw meew kenn du ko teg si waaw waaw meew moomu tamit meewum doon li ma nii. fee toj na ne waaye fii toj na. ah mënu ma woon yëgal li xew. lu xew. xanaa jabaru baaba njéeme bi. waaw. ñëw doxantu ma ne ko yow de sa kër war naa neex ne ko busoo sa wujj bi dafa mën a fecc rek mu yuuxu yow waxoo ma dara ni nga ko waxee noonu laa ko waxee. nga ne ko busoo sa wujj bi. ah lu ma ko waxee du noonu nga ma ko waxee. dañ ko doon nëbb. lu tax mettre ma au courant naa la. courant ma de da maa la bi la kii dama baaba njéeme la. déedéet waaw loolu nga ma wax laa ko waxee. waaye lii tax kay Air Force One daa dugg rek attaqué baaba njéeme naka jekk ma ne baaba njéeme lii waxi mbedd la ndax maag yow fi ñu toog buuse wuñ fi. Ah, yaa ko ko wax ah, baaba njéeme attaqué ma. nee ma jaay bande ak nee na daal gannaaw feeñ na man damay feeñ picc mu lakk ci taat di bëgg morom. lu wax. ah dem ci sama jabar ja naan ko maa la yor kooku ñëw attaqué ma fi ma toog naa ma xale bi ci kiosque bi ma ni ko booy tudd kiosque bi ma lay rey ndax xale bi ci kiosque bi mooy sama bége màdd di sama bége orange di sama pëns di sama ndoxum waalo di sama ajaa di sama jokkeer di sama dolli lii laa wax ma ni ko boo ko tuddee ma lay rey dama lay songu xeex. da nga ne sa awa xaw naa ko dama ko doon buloo. ñaata at de mariage. boobu ganaar sax waaye yow kii daa ni puccu ñu jox ma ko ca dëkk ba ñun dañuy teel a mariage. waaw ma la wax. damaa bëgg wax mu a daf may jéem a saasuma naan ma xamal man ko man dama laa nëbb sama li ma mën dëkk xale bi laa koy doon ndax mënatoo fubal quatre-vingt-dix minutes dix minutes ngay ñu yóbbu la ci bande tous bi may la ndox mu sedd ngay naan xale bay la gën a tegu ci temps xam temps xam tigiri temps waaw limpin kum temps wut capitalu bajo bajo 400 kilomètres après la moom ngay pare ma ne man maar Yaasin may sa bige may sa bige maar ma dara gis nga ku ma ñeewul sa aawa duma doon sa ñaareel maa la bàyyi ndànk wax jooju lu mu wul dafa jeex sama diggante yow sa aawa nii man mi nga yàq te man kenn duma saam ci mbedd ma jaay xalaatuma ko aw ma jot boobu puusal sama kiosque. mu ne kaf nag kii. kan mooy kaf magum jëmm bu doy ne yow dinaa kaf ak lan laay kaf ak yow su may kaf ak yow lan laa lay wax. Hmm. kafuma maa la bàyyi puusal. baam bàyyi kii ñu def la nii de.